원사 Sayyiduna zabiegiem. What. من هداية يا خير زاد ربي المعين ملكة ناسية وساسة العين دعوت بالفراد يا ربي المعين ملكة ناسية وساسة العين دعوت بالفراد يا ربي المعين ملكة ناسية وساسة العين أعز من دنيا وزاسة دل الجنان والغاد لي أواملي سفى الجنان ولا لي الأبرار في الورايا والغاد لي بالأنبياء الخرايا رفعني إلى الجنان نجيم ولسواي تنزح الرجيم درزيان الليل والفجار ونبدي إلى نجاري أكرمني البريء بالكتاب وسألني عن جانب العتاب لم يروني إلى دخول الجنة خير بسارة علي منا لم يروني سجن ولا وهيد أمري إلى الجنان أفلي السر المسون له وبل ولا إله إلا الله وخادني لو بأنواع البدي برهني الخالق من سواه وخادني ما لا سواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت جزي عن والمفاسد سلامتي من جالب الفاسد أكرمني الله بزيره وما يطاره ولي قال وما بابي الله كرام غرة وببقاء النبي سرا عباد ذي الجلال والإكرام لخلد المراقب الكرام إلي خاتم لم يكن ولا يكون أبدا لملكني لسوسك أبدا في كوني دار البديع عجبا لكوني إن الذي من الإله وزه أبرخني الكون وفيه فزت دلني الله على الله بلا تغرر وهمري تقبلا أنا قلاتي مع المسالم مسمني خص بلا كسادي وخالي الباب به سبورا رجالتي لا ديلا ثبورا لم يرني مبا الله فلا ولا إله إلا الله يقود لي اي سمني من كان لي ولي زافا سمني جاوت ربي باللسان عربي بلا نهاية وتاب غربي نزل الإسلام عند غربتي لدى الجزائر المنير تربتي نزالي نور القرآن والكتاب أزمان خدمة لدى أهل الكتاب تسير ما ثبت للمصطفي أنا يميني أنا زل ومدفعي أنا لي الله وزاد علي إلى سوى أمري يا بس المهم هداني الله وزاد علي إلى سوى يا بس المهم هداني الله وزاد علي إلى سوى يا بس المهم هداني الله وزاد علي إلى سوى بس يا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 Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba. Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Seex Ahmadu Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba sant ko war na Ahmadou Bamba sant ko war na Ahmadou Bamba sant ko war na Ahmadou Bamba sant ko war na Ahmadou Bamba sant ko war na Ahmadou Bamba sant Ahmadu Bamba sant ko war na. Ahmadu Bamba sant ko war Ahmadou Bamba sant ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba jukol ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Ahmadou Bamba kennal ko war na. Bamba kennal ko war Bamba magal ko war na Ahmadu Bamba magal ko war na Ahmadu Bamba magal ko war Ahmadou Bamba magal ko warna Bamba magal ko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 jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jërëjëf. Ahmadou Bamba jërëjëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Mbacke yaaye yoo jaajëf. Mbacke yaaye yoo jaajëf. Mbacke yaaye yoo jaajëf. Mbacke yaaye yoo jaajëf. Mbacke yaaye yoo jaajëf. Mbacke yaaye yoo jaajëf. Mbacke yaa moom jaajëf. Yàlla yaa moom jaajëf. Yàlla nee na la jaajëf. Yàlla nee na la jaajëf. Yoneen nee na la jaajëf. Yoneen nee na la jaajëf. Mbacke ñoom nan la jaajëf. Mbacke ñoom nan la jaajëf. Yàlla nee nan la jaajëf Mbacké nan la jaajëf Mbacké yaay yow jaajëf Mbacké yaay yow jaajëf Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yeneen jërëjëf yaa man ca yeneen jërëjëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yàlla jaajëf yaa man ca yeneen jërëjëf yaa man ca yeneen jërëjëf te jaajëf. yaa man ci njéeri jaajëf. yaa man ci njéeri jaajëf. kenn jëful Mbàkke jaajëf. kenn jëful Mbàkke jaajëf. Ahmadu Bamba jaajëf. Ahmadu Bamba jaajëf. Ahmadu Bamba jaajëf. Ahmadu Bamba jaajëf. Ahmadu Bamba jërëjëf. Ahmadu Bamba jërëjëf. Mbàkke yaa baax jaajëf. Mbàkke yaa baax jaajëf. Mbàkke yaa gore jërëjëf. Mbàkke yaa gore jërëjëf. yaa dimbali jàmm ñi jaajëf. yaa dimbali jàmm ñi jaajëf. yaa dimbali jàmm ñi jaajëf. yaa dimbali jàmm ñi jaajëf. yaa sagal jàmm ñi jaajëf. yaa sagal jàmm ñi jaajëf. yaa dëggal yàlla jaajëf. yaa bëggal yàlla jaajëf. yaa bëggal yeneen jërëjëf. yaa bëggal yeneen jërëjëf. yaa sigil yeneen jaajëf. yaa sigil yeneen jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Ahmadou Bamba jaajëf. Jey Sëñ Bamba. Jey Sëñ Bamba. Jey Sëñ Bamba. ni jotaayu tey bii dafay jotaay bu am solo lool ci dëkk bi di jotaay bu am solo lool ci xidmatul xadim ndax tey day jotaay boo xam ni dëgg la dañ fay amee fédération xidmatul xadim jox ko ki nga xam ni mooy Serigne Cheikh Bada Ndiaye mu bokk ci liggéey bi yàlla dogaloon ñu amal fédération ba agsi woon ci turam war a ay fédération xidmatul xadim yàlla dogal nag mu am gan boo xamante bi nii gan gu am solo la di ganu xasida muy sëriñ khalim Kebe te diggante bi yaatu lol fédération mën fay am te budé am gan murid yeppay am gan ñu wara ànd ak mom ci liggéey bobu ñu ne kon nañ ko jox jotay bi xidmatu khadim muy fédération bi jàppale ko ci bis bi ànd ak mom kon loolu mo waral tay ñu am fi fédération xidmatu khadim waye nak jotay la bo xamni ni ngi jëk léral ñëpp ni jotay mourid la alquran ji ñu ngi koy jàng ba fi mu ne ñetti kaamil walla durus bi itam mi ngi dox waaye ñu xam ni ay kilifa yu mag yu tedd teew nañu fi ak jàngkati xasida yi dëkk bi ak kilifa yu dëkk bi mel na ni Cees gépp teew nañu fi kon nag jotaay bi noonu mu yaatoo ci teewaay noonu lañ ko yaatale ci sunu xol ak suñu xel fas yéene képp ku fi teew wàccuwaay wa yàlla ci moom ñu jox ko ko ba mu mat sëkk ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba. ay imaam teew nañu fi ak i borom yi xam-xam noo leen di nuyu di leen siyaar waaye nag ñu tàmbalee ci nuyoo bi nag ki nga xam ne mooy kilifa ak jotaay bi muy sëñ Abdou Khadim Mbacke balay sa ñu ngi lay nuyu di la siyaar sëriñ Bada nee ne moom kat mooy kilifa ak jotaay bi ndax moo fi teew ak sëriñ Mouhamadou Lamine Bara noo baax di ko siyaar di siyaare bu baax sëriñ Modou Mbacke Mbacke ñu ngi lay nuyu di la siyaar ci turu mbooloo mi waaye ci turu murid yi fi teew yépp di ziare baax sëriñ Aliou Fall di sëtu Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu ma ngi koy nuyu itam di ko ziare bu baax a baax di ziare itam sëriñ Xaadim Fall moom itam di sëtu Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu kon bu ñu nuyee ñooñu rek mën nañoo yóbbaale kilifa yi fi teew di imaam yi ak borom xam-xam yëpp tàbbi nañ ci ñaari nuyoo yooyu ndax boo nee sëñ Touba ni Cheikh Ibra daanaka yoon murid yëpp tàbbi na ci biir loolu. waaye teewul rek ñu beral nuyoo Serigne ba Bada Ndiaye ci turu mbooloo mi moom mi nga xam ni dafa jaayante ànd ak mbooloo mii di ximatu xadim muy mbooloo moo xam ni daayira dana ci dana ci bokk ànd ak ñoom liggéey bi waaye kum neex itam nga ñëw ni membre engage laa li ngeen di def bëgg naa ko naa ci ànd ak yéen loolu moo ko boolee ci mbooloo mi biir bu yàgg la nag mu ànd ak mbooloo mi ba tey jii ñu door ko fekk si ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare di ko sant ci tawfiq jim ñu may ba bis bi tay ñu man ci tew and ko mom ba ban cey jëfël dara Serigne Touba Khadim Rasoul di nuyu bax nak ñi nga xani leen ñak tudd wala buñ leen tuddé donte mënu ñoo tudd ñepp buñ leen tuddé rek ñu balé mbolé mo dëkk bi muy Serigne Ousseynou Ndiaye jànkatu khassida ak Serigne Mamour soubou ak Serigne abdullah cham di borom xam-xam di waxtane borom Touba Khadim Rasoul waye di imam ci dëkk bi mok imam Serigne Mbaye ñu ngi leen tuddoo tuddee ñu yóbbaale ñu teew ñëpp waa Ahmadou Khadim nag baaxoon nañu saa bu ñu mësaan a daje ba kuréel ba noppi dañuy présenté daayira yëpp nuyu leen tudd seen i jëwriñ tudd mbooloo yi ñu àndal dalal leen waaye tey seen nuyoo yéen ñëpp dañ koy tënk ci benn daayira muy daayira Xasadu Sixaar bu Serigne Papa ak sëriñ Mouhamadou Sy kon tey ñun sunu nuyoo ci mboolem turu daayira yi tëgg nañ ko foofee ngir njëkkante ak waxtu wi kon mboole mboolem xamatu xadim bépp noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jottali ay nuyoo yu bàyyi koo Touba démb ci kilifa yi ngir dem guñ fa demoon démb ab délégation di waajal ziar bu ñu bëgg def ci Cheikh Amadou Mountakha doon ci waxtaan ak kilifa yi sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Ahad sëriñ Lamin Mbàkke Madina moom sëriñ Mbàkke Madina mu ngi leen di jottali ay nuyoo ak ziar. kon bu ko defee nuyoo bi dana gën a yaatu ci kanam ndax jotaay bu nekk ak li mu laaj waaye lépp benn liggéey rekk la muy sàkku ngërëmal sëñ Tuubaa waaye danoo bëggoon bu ñu joxee benn jàngkat mu barkeelu ba noppi ba ñu jàllale li mënta ñàkk ci programme bi nga xam ne Xidmatul Xaadim da cee toll muy liggéey bu mag bu am solo te mooy fas yéene àndandoo ak daayira yëpp ñaar fukki daayira ak juróom ak membre engagé yi danoo bëgg a siyaare yi Cheikh Mouhamadou gannaaw ba ñu ko yëgalee mbooloo mi ca ba muy door mu jox ñu tur tuddee ñu Xidmatul Xadiim boobaag léegi nag ñu liggéey ba am ñetti at bëgg a teew ci kanamam nag yóbbu suñu addiya gën a jaayanteeg moom ci liggéey bu rëy bi muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul kon nag programme bi nga xam ne moo jëm ci ak yi suñu kanam du ñàkk ñu leeral ko mbooloo mi waaye dañoo bëgg buñ noppee ci nag sëriñ Mandaw kenn ku ne xam ko mu ne ci dëkk bi di doxal jotaay murit yi ci anam bu rafet di jëmm joo xam ne caxasoo ak ñëpp kàddoom rafet lool moom la ñuy jox na bu ñu àggalee si loolu nag mu wéyal des ci liggéey bi nga xam ne ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk sa wàccuwaay na mu waree mu jox la ko ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba Xaadimu Rasul bu ko defee nag baaxoon nañu saa bu ñu jotee amee jotaay lu mënta ñàkk mooy jàng alxuraan jàng xasida sant sëñ Touba waxtaane ko mel na ni ñetti yi àgg na waaye bu dee ci waxtaan wi itam tey nam daan amee itam du mën a amee noonu. ndax yokk bis bi ak kilifa yi fi teew waaye daañ ci tënk lu gàtt rek donte ñaari juróomi lay doon ñu jox ko sëriñ Abdourahim mu barkeelu ak sëriñ Mouhamadou si ñu doog ko jëbale kàddu gi nag waaye dañuy toog ànd kook suñu bada ak sunu gan gi suñu xaadim kebe ba jotaay bi mat sëkk ndax lépp lépp lu fi ab liggéey rek tey jii ñoo ko xëye woon ñuy sant bokk yi ci xëy gi ñu xëy àndoon ci liggéey bi ba barab bi lépp yemb loolu lañ koy taxawoo ba mu àgg ñu fabaat lépp delloo ndax daa bokk ci jaayante bi képp koo xam ni dafa ay fédération Xidmatul Xadim commission xidma ak waa fédération bi ñooy takk jumtuwaay ya bu ñu noppee itam ñoo koy delloowaat kon képp koo xam ne yaa ngi ci biir mbooloo mi rek sàkkutit gi mooy ñu toog ànd ak sëriñ Cheikh Bada bis bi ak gan gi ndax suñu Xaadim Kebe bu jugoon rek ñëw Cees ku mu fi man di seet si dem ci moom fekk si ko teral ko war nañu rawatina nag bu ñëwee ci koo xam ni daa fekkoon ñuy ànd ak moom ànd bu rafet kon nag loolu warteef la ci ñun ñu xamee ko noonu bu baax a baax kon kàddu yi foofu lañ koy tënk xam naa dana gàtt lool ñu jox sëriñ Mamour Sougou ñu jox sëriñ Mamour Sougou mu barkeelu lu tënkoo tënku bu noppee rek ñu jàllale message yi ci tegu yëpp sëriñ Abdourahim Gueye barkeelu lu néew ñu jox sëriñ Madaw nag mu seet naka la koy organiser ba diggante bi suñu xaadim waree ñëw ñi fi war a barkeelu ak yi mënta ñàkk a ci kàddu rawatina kilifa yi lépp mën koo jàllale. ñoo koy tuub na di ko jégalu waaye ay murit pour ñu lu ñu bari bari benn murit lañu kon ñu ñëpp li ñuy teel rek mooy jotaay bi dund ah li nga xam ne moo fi am solo ci wàllu xasida yi ak déglu gi ak kàddu yi teraanga yi yëpp mat ni mu war a mate. kon loolu ñu ngi koy sàkku ci ñun ñëpp rek ndax ñun ñëpp loolu mooy sunu yitte mooy suñu ndam. ñi ñëpp nag tey ñi ay kilifa ci dëkk bi du ñàkk bu sëñ Madaw ñëwee ku ma ci tuddul rek dana ko àggale te su boobaa it defal na ma ko defal ko mbooloo mi kon sëñ Maam Mor bismillah sakartu li annahu qad saaxani أوجدني بهن فما قني وخادني إليه بتالي من بعد ما أسق بتقلي وجارني في إلى العلوم والفوز والأمل بالمحروم ثم صلاة بسلام تبع على الذي قصدي أنا تبع على الذي من بمراد اقتدى في السر والجار يكون مقتدى السفير والي وساب نجومي الخائر النفوس والرجيم ساوئني يوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منس جسدني إليك يا مهين ايه منك إلي لتهين فخمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا lima ladayka الحسن في تالف الخير وفي تعلم وفي تعليم وفي استخاري بالهدى المعلوم فقلت ساسري وساتوسلي بالمصطفى سفي اين رسلي وببنيه وبناتي معا في سلام اجمعا يا بر يا خفور يا أليم إني حمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام هم أوايا خلل المنام يا خالقي يا كامل صفاتي لك سكيت كثرة الأفاق خليل إني أبيد وأنا فهيم يا قساك والإخوان جميع سعادة دارنا تياسمي هل لي سياسات والإجابة بالمصطفى المصطفى والآل والصحابة هب لي خير قسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه قاسم ولصف الليلة أو البيمة بأمة المحبوب إبراهيم وليسخ خير حلال طيب وخير الجيران بحق طيب وساتني ساتري ثبات وسعيري وأنبياء الحق بحق تايري ورقني ترقية كثيرة بالبنت به رقية صفيا وخل أسايا أحرما وأجنبا ومسلما وكافرا بسينبا وأمني بالخير والسلامة في ام كلثوم إلى القيامة وليد ربي حسن الخاتمة هنا وفي قديم بجاه فاتمة صل على أبي مولاي وسلم أبي والاستير سعالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من الضرار وحلال ونجني ربي وأهل داري قلنا وفي قدم أقداري ونجني والمسلمين من فراق والتقي جسماني في قبل الجراح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا كيفنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار وجد اجابا بيننا وبين كل اسد انا اين يا ناو يا نسير يا جليل اني اخير المعظم سدير فلتؤمني بك وابلي الارب ممن على جمله هم وعرب سيدنا محمد باء الفرا وسيلتي اليك في ميسرا وسلم وسلما عليه وكل من من قدمت ما إلي واحفظ ذنوبي وتقبل أملي وليا خير منى وأملي يا من ألا أن مكان وحرد إني ساكن هنا وبمرد فكن أنيسي واسلني من السلام حتى أكون سالكا خير الظلام يا عبد يا مسلم يا يؤمن أنت مجرياونا يا مؤمن فعبد كل يا سجال من كل سوء وأساء والدلال الأجسام فكل من مساء سنو فيها فليقل خلفه يا ربيا ولتكفني أسى جميع العالمين ولتكفيهم أسى يا رب الأمين وجل بنائي بناء آسيا يجرني إلى القيور سافيا وجل بنائي بناء علمي وعملي بسنة وعلمي كصب سيخ مدو بامبدو سين ما مابندو سين ماس نغين تكنو بندم ني بروم أرسماس تريد اسملاي وقتنا بنيامباس بغير خمنا سرين بامبلا دي رمباس سرين بيجرا وي Mbàkke moo yooyoo taas damaa yëpp sa xaaram ca laaj bi muy paas Serigne Beko Ndoof Moustapha ba jiw mool te di xulan te di xulan wangalul si taxul ba dim jool sa gaay teeni bi tey na mooy jateg maar te baatam na ne colet ba tiimi la xiyaar moom rëyul tuutul gàttuloon ba dim duuñ bu daaree du ko kenn laa sa xaw daa ko wi sanaaw da sara layla aw siraaju salaami wa naara layla ko sopp Serigne Cheikh Massamba Serigne Bamba da daan mooru di yëkkati kaale rawani ya ko dal fi te walon day jor sumuray bene mel xet sikim bani blas di sax laari wurus moko jeg ay faas mom xesu baña petti ko fuldi aw ñuul yaram wa ngara tax melni jaani ngolol te leeru yaramam tax ni ci ya xereer randu li ci baati ba sakki ceener te am xar ganamam di nuruk mag bu weer te nuruk makanam day nuruk boros naar betam yaa dana lamsal dorok geeso borom kersa la won daawul tokk riisu siriñ mam matu geesu la daan lool di jël rëbb di lan sa di xoole néew mool moom ndox yi nam dafa simple moo jekk ay mbir bu daan wax di ko ndànkal te baat bi di riir melow tànk yi rinkul lasul fuful nooj sa xol jàpp taxoon lex ya ba sew rooj ci jéegoom ya duutul ci géet yoonu jàkkaar ca tempom ma lay xalaat yoonu islaam ولم ينسى مسيات أرض توبا ولم يبلغ طول الجبال ليبا سرين بامبا ليبول مرل درو حنا تاي تلامي وتقولكم وخل دلي دي تسوب سرين مام سيخ إبراهيم فال دلك لك موني جل بن جاني نغور بسوب يرمان توغا ملني بانغور لو نوري جلال يري جمالا لو نوري جمال يري جمالا سمبوتم خليما رو دبوس موسى taway dee nga dekkal te won na isa ne ko tufli sabar wi defal ko bosra mu tak ɓuri duniya ka saka ofra nonno on yiyede galam fulko mas on lasawayde ci taalif si fulko mas on lo yunus ko gal la ibrahima den taali gayi nam roos ko woy ɗum limanta walla karamay rijale so mbuuɓi tum balaa seen waram màggal la say gënay toog maxaamam jeylaani sa tàmbulee feeñ karaamay tiijaani sa bariwulee feeñ karaamati junne de buuti tey sa graw nga ko làqoon te daf di laa foor faral xat mu sa way wii te yam fi muusaa loolu lim limi tam doo ko xam ba dem kay jaxateeg samba jaara sunu maam wayoon nan ko ba te yaa ngi way daam ku neex baat la ma jóg way nga sangi Tuuba ku leen way bu nu fàddoo nu tàbbi Tuuba man ma doy borom baax ji waay ko kon foo fi jëm da ngay feer ana soppi Serigne Fallou ana soppi Serigne Fallou mooy fal di fole yi bu ko neex fan laa da ngay fale ki mooy sa ibul fodala ak borom Tuubaa kon su ko defee ñu yemale kàddu bi rek di sant yàlla bu baax a baax ci jotaay bi saa su nekk Cheikh Mbada ñu ngi lay ndokkal bu baax ci bés bi di ñaan ci dara ñuy sëñ Tuubaa yàlla loolu yokk te bu bees ci yow di ku fi nekk sëñ Ousseynou sëñ Moustapha ak mboolem ñi fi nekk ñëpp ak sëñ Xaadim nga xam ne yàlla dogal na mooy sama gante ñu war koo ganale di nuyu bu baax sëñ Ablaye Thiam ak mboolem jànkat ba fi nekk rek kon jéggi kàddu gaa ngi nii sëñ yàlla جبر نويت من ظلام قدمة تزر مصطفى بي في مازر خرمت من رب البرايا قدما لمن بجاي كفاني صدما أحمد هلا قروج من درر وكل سوء وعناء وقرر أذكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر ناوي قيدا حمدا وشكرا لزما برورا رب الورى وزازا القرورا فخمت نازما لسلم خدما مسليا بها على من خدما مرتجيا كوني خديما أسنا وأن أفز بالمقر الأسنا ملتمسا من مالك أن ينفع بالذي يريد أن يندفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام اصطفى نسما مباركا يقنا عذابا كما الذي كابدني أزابا أرجوزة نابرة للعيب مع الكتاب ورسول آجل كهاجل لراغب قد صرفت للمراد خايلا ما سفاي بايتا أو غايلا قد صرفت للمراد خائلا ما سفاي بايتا أو غايلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا ولا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني علي ولتكن مارون فسرمدا سل وسلم يا كريم هني علي ولتقلني ما أروم فانسر مدن سل وسلم يا كريم هني علي ولتقلني ما أروم جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لوون ملكتني أنت المليك والملك ما لم يكن لملك أو لملك سقيتني إلى جنان بمياه خيبك يا من خاد لي خيرا يا سكرتني عند جميع جلدك يا جار قد مكثت عندك سكرتني هند جميع جندك يا خير جار قد مكثت عندك يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفكر فوق خسومي جئت بذا القصيد ساكرا لك بي وقبل تفد لك زنت قصيدتي تي سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني كراما من ما زفال وكل ما أردته من كان فعل آتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فردي عنك باركت لي يا ربي في أورادي وخيرها وجدت بالمخروف ملكتني بكونك الكريم ما غاد لي تبصير وتكريما آتيتني ما القلب أنسى كلما مدى من الدر مهب تسلما كافأني من ما لو كفؤا مات بمال خيري ساغ كل من جات أكرمني بقل هو الله عاد ربي ولم يكن له كفوا عاد ناجاني الله مكرم سمد تناجيا بكفاء ني الكمد وجعل الأكرم أنفع الكرم والدرني بغير رد من سرم أزل وكونتي الخسيدة خارغة لعادة مفيدة يا يا خيام سلم سلام هل الذي جاء بأحسن كلام هل الذي جاء بأحسن الكلام سل وسلم وتقبل الكلام من على قارئ الوروث بما يفوق سن من مخروفي لمعدن الوروب قد رباط يا من كفى ذا الغرور والنباع ولي يا رب ناجاك عبدك الخديم ذا سلام مسلما هلا مزازين خلا جرجف سيخ بمبا يا متاندل كل أم دوت نيك بينيتاني ka ko téye ba ku nekk jot ci tey ridal ilaawa alal xadim bi ki yàlla may wax leen jërëjëf Serigne Touba sa jëf na ko yàlla fay Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall moo di rijaalu laay jot naa di war ba gis na lu laay ba mu gisee ak Sëñ Bamba dafa nar mee jébbal ko boppam ni ko yow laa wóolu Seexul Xadim noon na sunu baay Seex Ibra la gore lum baax le man la ko jox saadix la moo bari gëm jaaraama Seex Ibra jaaraama Seex Ibra jaaraama Cheikh Ibra Fall baabul muridiin war na kuy murid ku mu doon jibbi Fall ak njara njaay cër nga leen la jaay lamp maam seyna bu njaay Cheikh Ibrahima aboori jaal ana soppey Cheikh Ibra Fall dif leen ni màggal may sa kumba Fall sunu waajey aboori faal ak njara cër nga leen calan la jaay lamp maam Seynabu Njaay Cheikh Ibrahim bëgg naa Bamba bëgg le ko bëgg le ko soppem baa baayu Fatima ak baayu roqe yaa kalsum sibtu asima xaalib sama yonen mooy noobal bi am na soppey rasuulilaay dif leen ni nu màggal ko baayu yonen mooy noobal bi am na soppey sëñ Fallu Mbàkke dif Fallu Galaas baayu mel Sëriñ Falloy aboori jaal am na soppey Sëñ Saaliwu jóg leen taxaw ñu màggal ko bàyyi saal borom xel kon sama waajey aboori jaal déglu leen ma baax bu bu ko defee moom itam dafa bokk ci membre engagé yi nga xam ni dafa bokk ci fédération Xidmatul Xadim yàlla dogal na bi weesu moo ko aye woon mook Serigne Mor Sylla bu ko defee nag yéen ñi nga xam ni yéen a yor liggéey Xidmatul Xadim te murid yëpp bokk ci biir ndax Xidmatul Xadim mbooloo la moo xam ni kuy am murid rek yaa ngi ci biir waaye yéen ñi koy saytu noo ngi leen di fàttali bu baax ni fii ñu toll dañoo toll ci jamonoy liggéey bu baax baax ndax ziar bi ñuy waajal ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàgg loolu te wér soreetul dimanche tay jii bu dellusee ba dellusiwaat la muy le 30 mai incha allah loolu moo waral démb délégation bu am solo demoon Touba ngir yëgal kilifa yi ñëw gi démb fa la ñu yenn yàlla na kilifa yu bari yu gisee ak ñoom wax waxtaayu bis boobu kon nag ñu ngeen di yëgal ni ñu ko tënkee woon rawatina ci bisub jaayante bi bisub bi dimanche bii di ñëw la incha allah jaay bi nag mooy lan mooy daje ñun ñëpp gannaaw bu ku nekk joxe si addiya ba noppi ñu defaat ay jaayante yu demaat ci Cheikh Amadou Moustapha te jaayante yi xaalis baax na waaye ay jumtuwaay itam baax na moo xam ak basan la wala matelas la kudd mbaa kaas baraada lu way am ci loo xam ni yàlla na ci nga jox ko Sëñ Tuubaa koo jox rek dañ ko bëgg boole ginnaaw bu addiya yi matee mu bokk ci li ñuy siyaaree Cheikh Amadou Moustapha jotaay boobu nag day jotaay bu am solo dimanche bii jëm mi ngi amee fee ci Mahdou Koudous ci buntu daara ji 4 heures lañ joxe heure ngir bëgg mboolem daayira yi teew fa ak képp koo xam ne am nga pas-pasu yóbbaale yóbbante dara ci addiya bi ci ci ci addiya ji baa nga bëgg ko ànd ak mbooloo mi kon boobu message moom bokk na ci li nga xam ni moo ci ëpp solo ngir yéen ñëpp ngeen bàyyi ko ak waa dëkk dëkk ndax liggéey bi ñëpp ci bokk ñëpp ci ànd gannaaw loolu tam ñu leen di yëgal ni yéen daayira yi wàllu bats yi nga xam ni bu ñuy dem ci sëriñ ba képp kuy dem na ko war a takk ngir xamtu ci wàllu mbooloo mi ak sécuriser mbooloo ak xam kan moo ànd ak mbooloo mi ak ku ci àndul loolee na ko ñëpp waajal xam ni kenn ku nekk buñ ca àggee sa jëwriñ dana ñëw wecc la ko ci téeméeri dërëm nga takk ko ngir ba kër ñuy wàññi bu ñu xam ne ñii ñoo bàyyi ko Cees képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg a ànd ak mbooloo mi ci ziar bi bàccale bi junni rekk la junni ngay joxe mooy doon sa barkeelu waaye nag ci ab daayira ngay dem bu bokk ci xëy na bu xadim ñoo la mën a jël nga bokk seen oto. wàllu oto yi tamit suñ ca àggee daara ju nekk su fekkee mën naa am oto boppam moo xam benn la mbaa ñaar moo koy wutal boppam toppatoo ko bu ko defee itam fii lañuy ñuy daje maanaam fii ñu déparé woon ba ñu dem Massalikul Jinaan fii la ñuy déparé bu ñuy dem Touba. bépp daayira boo xam ne nag sa mbooloo matewul benn oto moo xam kaar la wala biis da ngay seet dendal. da ngeen bokk liggéey bi ngeen waxtaan boole seen bopp lu ngeen di am ci ay oto ngeen waxtaanee ko ba wut ko waaye fédération bi noonu la tëddee ci wàllu ziar bi kon muy yu gàtt yoo xam ni ñu ko fonkee di jàpp ci la lépp di yéwénee li nga gën a leeral nag lépp dañuy bàyyi ba dimanche bu ñu teewee ca jaayante ba lépp gën faa tënk moo tax dimanche bii di ñëw kenn ci mbooloo mi war koo wuute jëwriñ yi ak membre yi ñëpp war a teew ndax mooy doon suñu mujj jotaay bu ñuy tënkee liggéey bi ngir wàññi wala yëkkati nag jëm ca bu loolu jàllee suñu Cheikh Bara ndax mi ngi fi dafa am lu ñu baaxoo def Bara tey jii suñu ñaar fukkeelu jotaay ak ñeent ak juróom bi weesu waroon ñaar fukk ak ñeent bii mooy suñu ñaar fukkeelu jotaay ak juróom ci yow kon day mel ni ñaar fukki daayira ak ñeent ay nañ ak ñaari membre engagé ba ñett ndax bii weesu membre engagé la woon ñëpp teewoon fa moom sëriñ Mamour Sour mi daane léegi ak sëriñ Mor Sylla tey jii nag yow lañu fekk si dañu baaxoo woon pour dem fédération dayiri bi ñu fekk si bu ñëwee ba ñëpp toog dañ koy xamle dayiri mooy ban dayiri kañ la sosu woon kan moo ko jiite kan moo ci topp lan mooy seen programme ba képp ku fa teew gën a xam dayiri bi ak liggéey waaye sant leen ak ñaax leen ak gën leen a tax dañuy sonn ci liggéey si tubaab loolu la même bu dee membre engagé loolu la ñuy wax ci moom kon suñu Cheikh Bada mii kàddu yi ñu wax ci moom day mel ni du bari ndax jotaay bi wane na ko sëñ Cheikh Bada Ndiaye ñuy wax ci moom ci turu Xidmatul bokk du bari ndax jotaay bi wane na ko gannaaw ba mu nekkee am murit moom sëñ Cheikh Bada murit bu dëggal la bu rafetal ak dëggalam nag. dangereux la waaye mën nañ koo xam ci jëf yu muy jëf ak melo mu am ci xasida yi Sëñ Tuubaa yi ndax murit la boo xam ni ñu bari miin nañu jotaayu xasaayit boo xam ni jotaayu xasaayit yoo xam ne daf ciy toog ñu jàng xasida yi ba mu jaxasoo def ab jënd bu méttee métti loolu bari na ci mbooloo mi ñoo xam ni xam nañ ko ci moom te képp boo xam ni sa xol dana yëngutu say raboñ ju tuuru ngir xasida yi Sëñ Tuubaa yi bu ne jàppee bu dëggal bu dëggal nga buñ ma ko jàppale ko dëggal ga ndax xasida yi ku ko bëggul amoo ci tolluwaay doo ci jooy doo ci daal wax jël waaye itam suñu Cheikh Bara Ndiaye rafetal la rafetal gi boo ko seetoo jotaay bi mën na koo leeral ndax bi nekkee am murit bu ko neexoon ni waa Xidmatul Xadim dañoo bari coow dañoo mën a aalu dañoo nangam ni ko ñu bari di waxee waaye bi mu xoolee ba xam ni alxuraan la ñuy doxal ak xasida ak bëgg Sëñ Tuubaa ak liggéeyal ko daa ñuy bokk naa bind leen ma amu ci génn li muy doon doon kilifa kon loolu mën naa wane ak rafetalam waaye tam gan gii ko feeñ si tey mën naa gën a wane ak rafetalam ndax ku ne xam na ni bu fekkoon te bi nii doxewul doxewul rafet du mën a am tey sëriñ Xaliilu Kebe may ko jotaay bii di ko ko ziyaare si waaye bi mu ko fi bi mu ko bi mu ko mayee ba noppi fekk na fi murit yi ndax ku fi teew di xam Cees daanaka Cees gépp ngi nii dama ni ku fi xam am ku fi teew te xam cees daanaka Thiès gépp ngi nii imaam yi borom xam-xam yi jàngal xasida yi taalibe seex yi ñoom ñëpp ngi jox kon suñu Seex Bada Njaay ñu ngi lay sant di la ñaanal gudd fan ak wéru yaram jàmbaar na lool ndax dox na ci sëriñ bi ba am ci ab cër muy cër boo xam ni keroog bi ñu taxawee fi ci guddi gi di waxtaanee jotaay bi ni ñu ko war a defaree nee na fii lañ ma seexalee woon. kon nag damaa bëgg a si ñu gën kon seex googu mu am doxal na ko tey defe naa murit yëpp yéene ko ko bu wér wér kon ñu ngi koy sant bu baax di ko seereel mbokk tali bi kaddu yi ñu du kaddu yu taggaate waaye kuñ ñëw ci yow si la dañ koo baaxoo def ngir wane la ngir gën laa soññ waaye la ngay dox ak la nga nekke murit yi mën na cee roy kon si Seex Bada jërëjëf bu loolu jàllee sëriñ Ousseynou Ndiaye xasida bisam bi muy defal borom Touba ca mairie ba nee na la 11 décembre la na ko ñëpp waajal waaye nag bis ñu ko jiitu mooy bisu sëriñ As Ngom mi ngi nii ku ne xam ko muy jëmm joo xam ne ku min Cees xam nga baatam mu yàgg tudd yàlla ci baat bi yëpp bisam boobu nag muy def nee na daa bëgg murit yëpp dikk ànd ko moom kon ñun waa Xidmatul Xaadim am nañu yéene teew ci ànd ko ak yow ndax ñun amuñu xëy ak seen daa bokk suñuy sant képp kuy am murit bu amee lu muy defal sëñ Tuubaa bu ñu ko waxee ak bu ñu ko waxul dañ koy def lépp lu ñu am def ko ci moom ngir sëñ Tuubaa li fekk la muy woote du ngi sëñ Tuubaa tere amul lu dëng ñun amuñu xaar bu ci xaar mu duñu woo baaw ñàkk ñoo woo xëy na sax dañuy bañ a ñëw bisub jàmbur di fa takk dara baa ñu fay tekki dara waaye bu doon du loolu ku am bis ñoo ñëw andi suñuy basang andi suñuy banderole takkal la lépp ndax bëgg gi ñu bëgg liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa boo ko bëggee da ngay bëgg léppam kon sa bis boobee kenn mag ñu xadim dana ci teew lu ñu am dañ ko ànd ak yow bis boobu bu loolu jàllee bokk taalibe yi ngi leen di bu baax ci wàllu addiya yi nga xam ni saa bu ñu teewee ba agsi fii ba la ñoo wax dara danañ ko laajal borom Tuubaa ndax ñun amuñu ay sas ñuy def lu mooy saa bu ñu dajee rek ni addiya Sëñ Tuubaa lu mooy am ñu joxe ko denc ko di ko liggéeyal Sëñ Tuubaa addiya jooju nag lañu bëggoon bala ñuy jàll ñu mën koo laaj mbokkale bi joxe ko képp ku fi teew nag te man cee barkeelu mu néew ak mu bari na nga xam ni demul fenn fu ci liggéey bi ñuy liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul kon ñu ngi koy laaj ñëpp ñu gaaw laaj ko ni ñu ko war a defee dafa am nag positif lool bu noppee ñu wéyal bu ko defee benn jàngalu xasida Serigne Xaasim Mbaye moo fi yónnee bataaxal bii di yëgle bisu cantam gi yemoon la dër bi ñu jëm tamaat na faal nee na mi ngi koy yëgal na ko ñëpp bàyyi xel ngeen baal nu kon addi ji ba ñoo joxe bu gaawee rek baax sëriñ Maam Góor dañ koo tuddee bis te jàkk yu suba ak jàmm mu bëggoon mbooloo mi itam ànd koog moom xam ngeen moom bisam bisu murit yëpp la ndax jikkoom ak melokaanam waaye rawat na ximatu xadim kon suba ak jàmm nu mu ko bëggee bu ko waxee ba xam dañuy ñëw këram ànd ak moom dox ba ca bis ba am dañ dañ koy fekk ca bis ba fu ñu ko bëggee rek ñun ñëpp bu subaa ci guddi ñu ànd ko moom këram la ñuy daje daal di ànd ak moom ba ca bis ba incha allah kon loolu moom suba rek la moo jiitu ci bis yëpp waaye mboolem bis yi fi wax yëpp benn bu ci nekk ñu waajal ko ba baax a baax ndax sëñ Tuubaa am ci ndam rek li ñuy bëgg kon addee ji ñu gaawal ko bu ko defee suñu gan yi tedd yi ak jànkat yu mën a jàng yi ak borom xam-xam yi lu mu néew ba di ñëw ñu mën a am ci ñoom dara lu ñu barkeeloo kon na gaw touti day melni sax ci Abdourahmane gey man nga jige ci ni tay mom day gatt xamna ñent ñeent muy ba jurum rek mboro mi min nañ ci ni waxtan di diko takam diko lu bare bare xamna naa sëñ lëfal ma lay ñu koy siyaar moom li tax ma di ko siyaar mooy dafa am kaddu go xam da wax ma ci soñu bok talibé yi koy yi lëfal xamna xam naa ñoo ñëpp suñ mën a ñëwee mom moo moom gën a kii dina mën a jotal loolu lépp ni mo rek adde yi kon nañ ko laaj من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سدد لساني نبيل جنان الشرف اعماني وسط بلائي يقول عبد الله وهو احمد خديم من سماته محمد باسم الإله وهو رحمن وهو رحيم قاد للأمان بلا أزل ولا جوى ولا عرر ولا عدا ولا بلا ولا درن يا رب كن لي وخذ لي برد عرضي وما تمرت بجاه المنتخى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنصر أفضل رسلي barkab cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul jërëjëfal cheikhul xadim jaaraama maam cheikh ibrahima fall lamp babul muridine asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax ni ko jëwrin waxee waxtaan wi mënta gudd ndax gan yi fi nekk ñu ngi siyaare ñëpp nag waaye ñu def soññee bu gàtt boo nga xamante bii ñi ngi koy jëmee ci xasida yi borom tubaa yi yi nga xamante bii kenn ku ci nekk tey noo mel xasida yi ñoo la ko def loo amit xasida yi ñoo la ko def moom lañ bëgg a soññee ay kàddu yu gàtt sëriñ tubaa nag dafa waxoon yenente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ni ko salaatu sitta bi matxi sitta taatihi baxta maatisha i jël naa at mi nga xam ni fukki weer ak yaar la juróom benn weer yi ma lay tagg booleeg di la roy waaye juróom benn weer yi may julli ci yow di sëlmal ci yow loolu tax mu bind ci yenente bi la nga xamante bi amul kenn ko nga xam ni mas ngaa bind lu tol noonu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama ba taxoon mu ni ko antal karimu annal qadimu dëhran uddimu fii ka sanaa damay wax ne nag fii ka sanaa yi jooju nag moo waral foo dem ci adduna bi moo waral foo dem gis ñuy jàng xasida yi Serigne yi ndax fii ka sanaa yi la ko Serigne Touba wax na dëhran uddimu fii ka sanaa yi jamono dinaa teg aw tagg wa nga xam ni sa kaw du fay mbokk nag ñu xam ni ku yàlla baaxe ba nga mën xasida di ko jàng na nga xam ni am nga tawféex ju rëy na nga xam ni am nga ndimbal gu rëy rëy dafa am bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul dafa masa romb benn mbokku taalibe kenn ci taalibe yi sëriñ bi di julli ji muy jàng alquranul karim sëriñ bi ni ko acce ñu julli ji ñu demaat ba beneen bis moom mu toog yoru xasida ak mafatixul bishri moom jëmm jooju di ko jàng sëriñ bi di julli ji romb ko waxu ko dara mu am ak jaaxle lool mu ñëw ci sëriñ bi laaj ko ni ko man kat dama jaaxle dafa am bis ma toogoon di jàng alxuraan nga romb ma di julli ji soññi ma waaye tey may jàng xasida ak mafatixul yi waaye soññi wuma ngir nga julli ji Cheikh Ahmad Bamba ni ko ku ni julli kuy julli ni ñu koy waxee kaay ñu julli loolu nag kon day wane ni xasida yi dafa am maqaama mu kawe ak daraja ju rëy joo xam ni kenn ku nekk war nga koo fonko moo tax seexul xadim wax ni duuna makatibin ibadatu maa al masaya jamaa sëñ tubaa dafa wax ni lépp lu mën a doon fa sunu boroom ba mu koy wax nag dafa tàmbalee ci ni moo xam julli la moo xam koor la cheikhul xadim nee na sama xasida yi moo ko féete kaw fa sunu boroom